أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية طيبة مباركة بمناسبة حلول شهر رمضان مبارك ين بوك جولي ديني سيتان في كيسين سين اميسيون مالكيا تي في اميسيون بيغا خامتاني ني نكو تودي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay di leen wax chahru ramadan mubarak kulla amin wa antum bi xayri kon mbokki jullit yi ñi ngi leen indi lewoon seen waxtaanu koor tey nag dañuy waxtaan ci kromp macha allahu taala mbokk jullit yi kromp lu doy la soo ma joxulee lii duma la defal lii soo ma neexalulee lii doo ko am ci man soo ma neexulee li ngay ut ci fii ma nekk walla fa nga xamante ne fa nga nekk wala la nga xamante ne moom ngay sàkku dinaa ci dëgg sama tànk teg ci loxo mbokki jullit yi nañ leen ragal yàlla ndax borom bi subhanahu wa taala dane ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun mbokki jullit yi suñu borom bi subhanahu wa taala dane nañ ko ragal dëggi dëggi dëggi ragal te nañu xam bu ñuy egsi ci moom ëllëg yowmal xiyaam dinañ teg ci taabal ju lu leer indil ko lu leer naññ ci jullit gi nga xamante ne moom lañu waxante woon ak moom ba mu ñu yabalee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ñëw ci ñun wax ni borom bi moo koy yónni ñu nangu ko bis bu ñuy dellu ci moom dina leer kon mbokki jullit yi dañ leen bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax a baax a baax jullit du kromp julit du ger loolu lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw la ci sa mbokkum jullit ak sa moroomu mbokkum jullit ndax ki nga xamante ne dafa néew doole mi ngi soxla ay dossier yoo xamante dina ko am lum ko jariñ wala mu bëgg loo xamante ne da leer ni li bu ko amee sax ñépp mën nañ cee jariñu nga di jël sa ger dal di teg ci diggante bi lan ko waral nga jël kañaan ci sa biir xol daal di fay teg mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu na ca ba alxasadu laa yasuudu mu anyan do ku añaan sang kon mbokki julli di kañaan baaxul comme ndeysaan nii ma tuddee sama émission bi ca la yor subhanahu wa taala wax ca aaya ba ni na ngeen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu dimbalante ci du du ragal kon mbokk julidi masha allah taala xamna mbokk di dañuy and dem ci Quranul karim suñu deme ci saaru alquran bi borom bi subhanahu wa taala wax masha allah taala suñu borom bi subhanahu wa taala ma nga fay wax ni ما شاء الله تعالى كم نمك وحيوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نغين ما رغل تبغين دي نيو تي مان نلب لير كون بوك جوليت يي لي يونتي عليه الصلاه والسلام واخ مين كوي واخ تي بن حديث ماغا نان لا تباعدوا bàyyi leen di gannaawante wala taxaasadu bàyyi leen di añaanante wala tadaabaru bu leen wanante ginnaaw bu kenn bañ moroomam macha allahu taala na wa kunu ibadillahi ixwaanan na ngeen nekk ay jaam yàlla te nekk ay mbokk mu ne jullit bi warul gis moroomu jullitam mbaax ga muy am wala avancement ba muy bëgg a àgg wala mu leer ko ni ni lii day amal njariñ askan wi amal ko njariñ mu xam ne lii bu ko ca jàppalee dina ko raw mu daldi teg tànk bu ñëwee waxtaan ci ak moom mu indi garam teg nii nga koy defe fii ngay jaar il faut nga def lii bu la jaralee sax mu dindi alal di la jox nga di ko laaj ndeysaan sànn léeg da ngay gis ñoo xamante ne dangay soxla benn affaire di leen ko wax dina la ca laaj alal joo xamante ne da leer ni lii mu lay laaj amoo ko fu nekk nga daw fa jëm fu nekk nga tuñ tuñi fa lu nekk nga def ko ngir mën a am loolu loolu ñaaw na ci jullit du loo ëppalee sa moroom won ko ko ndax yàlla dafa bind waaye yamalewul léeg-léeg kenn ñëw saan soxla benn dossier wala mu ñëw bëgg a arranger benn problème nga daal teg tànk mande de man maay bras droit ki nga soxla man de bu la leeree ni boo jaarul ci man loo soxla munoo koo am ndax kii nga xamante ne moom nga soxla te fa nga bëgg a àgg moom mooy kilifa gi lu ma ko wax lay def lu ma ko waxul du ko def kon mbokki jullit yi nañ leen bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax rawatina ndeysaan sama mbokk yi nekk ci bureau yi léeg-léeg nga gis surtout ndeysaan suñu moroomu jigéen yi ñu sonn lañ ci njàng doom yi ñu góorgóorlu lañ ngir seen doom jàng mën a réussir léeg seen doom am yenn diplôme yi ñu daal di ne man kat ndeysaan am naa benn mbokk papaam bu nekk fële wala am naa koo xamante ne sama càmmiñ lañoo doon jàngandoo wala kii mook ay wëllëre lañ woon mu yore dossier fu ne ma tuñ tuñ di jëm lu ne ma ngi koy def ngir bëgg doomam ji mën a liggéey mën a euh, di ko jàppale ci kër gi ndax jamono na mu mette macha allahu taala mu ñëw indi dossier bi nga daal di ni ko boo ma defalul lii duma la du ma la defal lii soo deful li ma bëgg ak li ma la wax doo mës a gis kilifa gi ba di ko jébbal dossier bi ba mu mën laa dimbali mbokki julli dinañu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax ñun ñépp dañuy ànd dem ci alquran ndeysaan suñu borom bi subhaanahu wa taala maa ngi fay wax alam ya'lamu anna allaha ya'lamu sirrahum wa najwaahum wa anna allaha alaamul uyuun suñu borom bi subhaanahu wa taala ma ngay wax ca suuratu tawba ma nga naan xanaa xamu ni yàlla moo leen gën a xam seen mbóot lépp lu waay di brek rekk xam na yow mi nga xamante ne yangi lek ger te kilifa ga nga xamante ne moom nga nekkal yëgul tinul boko ko indilee dossier lu nekk la lay jaral pour mu mën signer fekk na lekk nga ci dossier boobu xaalis bu baree bare baree baree bare mbokki jullit yi nañ leen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax suñu borom bi subhaanahu wa taala mu dellu wax ni li ngeen di déeyante yépp man yàlla xam naa ko gis nga lu waay déey moroomam yàllaa la ko gën a dégg yàllaa la ko gën xam moo tax nak, macha Allah taala may indi tuuti rek di wax ak nag suñu mbokki jigéen ñi nañu bàyyi xel bu ñépp toogee ci mbooloo nga dem déy kenn yaay na nga ànd groupe wala nga ànd ak wala nga ànd ak ñeent nga jékki-jékki rek di rek di kenn lu doy waar mi ngi noonu ndeysaan te njort dafa sew bu ko defee mu dal di ñaaw njort léeg sax mu ñaaw njort daal di ni est-ce que kii jëwuma sax wala kii est-ce que reetaanuma sax est-ce que kii li muy déeyante du man moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tere nee na bàyyi leen bu ngeen toogantee ci seen biir jékki-jékki rek sëgg ci noppu kenn rek dal di koy déey lu doy waar mi ngi noonu ndax bu dee ci teggin ndeysaan léegi sax moom euh, développement dafa am ci lépp da ngay soxla ni toog ak moom ci mbooloo munoo koo jot nga jël sa téléphone daal di ni kar daal di wax ak moom saa yi mbooloo toogee na nga bàyyi xel tegginu mbooloo ma ba yu bari bu ko def kon doon naa ko wax ci sama émission bële passé ni Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon na teggin Ragalon na ak bayi won na xel nit ñi ba suba saana ñëw ci jakka bu gisee mbooloo ma bari fa mbooloo ma yam fa lay du xuus mag du dugg ci biir nit ñi kon loolu ci teggin la bok kon mbokki jullit yi nañ leen bàyyi déewante suñu borom bi subhanahu wa taala ni lu ngeen déeyante man xam ko yow mi lekk ger ci biti ba sa biir bi tane nag ger macha allahu taala seytaane da lay puuse nga topp àdduna jital sa bakkan luñ la jox nga lo buñ la koy jox sax da ngay kontaan da nga naan ah lii de bari na bu ko defee ki la ko jox yaa ngi koy yëkkati yaa koy tatagal yaa ngi koy dugal ci biir yaa koy teg sax ca chaise ba bu ko ñam fa fekkandool ñoom ñëpp ñu bokk lu ut ñu naan waa lii lan la ndax xel xalaatam dafa sew fekk na ger kese ngay dunde te képp koo xamante ne jël nga loo moomul fii yàlla nee na bu yomal xiyaamee dinga ko delloo lu waay di jël nanga ko xam lu waay di ut nanga ko xam lu waay di wax nanga ko xam lépp lu nit wax fii dinga ko waxaat ëllëg yomal xiyaam ci kanam suñu borom bi subhaanahu wa lépp lu waay jël te mu leer na ni lii moomoo ko bu ëllëgee dinga ko delloo te nag dara gënul metti nga julli ba sonn woor ba sonn surtout jamono bii ñu toll aj nga màkka def nga ponk le ponk islaam كم نيكو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحين بني الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كم نمكو وحي تحديث بني يالا دفتبح الإسلام تي جرومي بونك جرومي بونك يب دفنوكو جمجي يالا gëm nga ni yonent bi yonent yàlla la yàllaa ko yebal ci ñun yaa ngi taxawe julli juróom yaa ngi génne azaka yaa ngi woor weeru koor yaa ngi aj màkka nga dem ëllëg nag daal di feesal dell sa kees taxaw ci sa kanamu nawle mu ni la fay ma ndax bis foofu amul liggéey fayiku la fii la ñuy liggéeyee li ñu war a liggéey waaye bis bu ñu demee fële dañuy fayeeku li nga xamante ne moom lañu ñu liggéeyoon fii jullit bu nekk na ko bàyyi xel perte dëgg mooy dem ëllëg ci kanamu borom ba duy say kees ba mu fees ñëw yépp ñu vidé ko te ñan ñoo ko vidé jaamu yàlla ñi nga xamante ne ñoom nga doon tooñ fii mbokk jullit yi nañ leen bàyyi tooñante bi nañ leen bàyyi ragalante ginnaaw bi nañ leen bàyyi jëwante bi nañ leen bàyyi waxi mboosoor ci suñu biir macha allahu taala suñu borom ba wax ca aaya ba ni man dey maay xamaa kon bi maa xam lépp lu def di ko nëbb xam naa ko maa xam seeni mbóot maa xam li di déeyante maa xam li ngeen denc man maay aalimul xëy bi bu dee xëy bi ci sama loxo la nekk man maa ko yor kon mbokki jullit yi nañ leen bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax nañ leen yërëmante nañ leen dimbalante nañ leen ragal yàlla nañ leen bàyyi xel kuusu bàmmeel ndax suñu borom bi subhaanahu wa nee na am na bàkkaar yoo xamante ne soo ko defee balaa ngay dem fii laa la koy won su ma la ko wonee fii ba nga sonn soo ñëwee fële ëllëg ma réglé waat la yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal ndax kromp bi ngay kromp liñ la ciy jox du la jariñ dara li nga xamante ne dangaa dem ñàq ko daj ci lu nekk mu metti lool nga liggéey nga lekk ko mu rees la ak jàmm moo gën li nga xamante ne dafa yomb lool nga am ko loo koy amee ci kromp soo ma defalul lii duma la defal lii bokk julli di lañu bàyyi loolu xel nañu bàyyi loolu xel bu baax a baax lu doy waar mi ngi noonu te nag corruption dëkk bi daf ci am ñoo xamante ne ci loolu la ñuy dox am na nag macha allahu taala ñoo xamante ne dañuy dimbali nit rek te yàlla tax comme ni ma tuddee sama émission bi taawunu ala al birri wa taqwa wala taawunu ala al ismi wal am na ñoo xamante ne wallahi ci mbaax la ñuy dimbali saa yoo jugee am ay jafe-jafe am ay problème bëgg a say problème jaaxle lool xamuloo foo jëm xamuloo nooy def ñu ni la kaay ba nga ñëw ñu dalal la dimbali la te yàlla rekk tax ndax yàlla nee na ku ma lebal ker man yàlla dinaa la fay guddi nañ leen leblante te nañ leen njëkkalante ci mbaax nañ leen njëkkalante ci fukk-fukk yi te bàyyi benn benn yi masha allahu taala kon mbokki jullit yi nañ leen maytu ger borom bi subhanahu wa na man maa leen gën a xam man mii maa leen xam lu ngeen di def dara umpuma ci macha allahu taala mu ne waat ci benn aayal qur'aan suñu borom bi subhaanahu wa taala mi ngi naan allazina yu allazina yuqiimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun mu ne ñi nga xamante ne ragal nañu borom bi subhaanahu wa taala dañu ko ragal ñeme wuñ ko li yàlla digle ñang koy def yàlla nee na li nga xamante ne man moom laa leen wërsëgale képp ku ci dimbali moroomam te nga taxawe julli bii nga xamante ne moom la sant so ñëwee ci man dinaa la jox payoor kon mbokk jullit yi nañ leen bàyyi loolu xel bu baax a baax a ci tawba fa macha Allah taala mbokki jullit yi nañ leen ger ger dafa haram, te lépp ger yalla da koy dajale ba mu egg mu teg ko benn place su boroom ñëwee munila ni la régler leen seen diggante ndax yàlla nee man kuma ma tooñ la baal ku ñaan dinaa la may te ku ma ba jéggal la waaye nag nañu bàyyante xel ñun ci suñu biir suñu biir mbokk jullit yi lu doy waar la dangay gis koo xamante ne day tooñ moroom ma di ko tooñ di ko tooñ ba nga naan waa lii lan la te loolu baaxul yaa fi dàq julli yaa fi dàq woor yaa fi dàq saraxe yaa fi dàq ñépp dañ lay seen fu baax fu nekk nit ñëpp seen la fa waaye yaa ngay tooñ sa nawle di ko tooñ te am na ñoo xamante ne ndeysaan dañoo mel ni man yàlla da leen dénk ragal soo leen tooñee dañoo sax ragal a fayu nga amee leen àq te àq dafa sew nañuy maytu di tooñ ba pare am na ñoo xamante ne bu ñu tooñee sax dañ cay teg menace dañ lay tooñ ba pare daal di lay menacer buñ la tooñee dañu naan lii ma la def bu jëmee kaw rek nga xam ay mbokk jullit yi nañ leen dellu ci yàlla nañ leen ragal yàlla yàlla nee nañ ko maytu yàlla dane maytu leen ma bàyyi leen ma xel gëm leen ma na dëggu ci yéen na wóor tax a ngeen xam ne bis bu ngeen ñëwee li ma leen doon wax yépp di ngeen ci teg seeni bët te yàlla lu mu wax dina ko def macha allahu taala nañu bàyyi borom bi xel rawatina weer bii ñu nekk bépp bàkkaar jullit da ko war a maytu bépp bàkkaar nit ki da ko war a daw bépp bàkkaar nit ki da koo war won gannaaw bu baax a baax a baax a baax baax ndax li ngay def ci àdduna bi topp sa nas fu bakkan topp sa bànneexu àdduna ni dara duma ci fekk dama bari doole kenn mënalu ma dara kenn duma wax dara man maa ëpple ñépp man maa am kàddu man maa am doole man maay ki nga xamante ne ñeme wuñ ma lan moo ko waral sa doole bopp boo xamante ne yaa ngi ko teg ci sa bànneexu bakkan ñépp ragal la ñépp naan kii dey moo la ëpp branlon ndeysaan macha allahu taala yow mi nga xamante ne nee nga yow yaa am branlon yaa ngi tooñ rek nu la neex daal ngay tooñe jaamu yàlla yi sa yoon nekku ci sa lépp mat na eh. bis boo duggee ci kuusu bàmmeel ba jàkkaarloo malayka yi ba ñam biir suuf yow dong yaa xam la fa nekk kenn xamul loo fay daj mbokk julli di nañ leen bàyyi tooñ suñu moroom nañ leen bàyyi tooñ suñu boroom nañ leen bàyyi tooñ suñu bopp mu mel ni macha allahu taala lii lañ leen indiloon ci seen émission corruption ñu bàyyi ger nañ leen bàyyi ger li ñuy def nañ ko def te yàlla tax nañ ko def fi sabilillah rawatina fii jamono bi toll li fi xew yépp ñu teg ci suñu bët ku nekk dangaa war a am sa ruq mën a kan wax ak sa bopp ni man maay kan man ku ma doon dañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax macha allahu taala muy seen émission bu ñu leen amaloon fii ci Malikia TV di taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan kon seen émission baa ngoog fii ci Malikia TV ngeen teg seen loxo ci koor gi yépp incha allahu ñun a gi yéen ba bañu naan allahuma laka sumtu وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت بمجيختك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته